Sénéinfo International. Euh, Sénéinfo International Sénéinfo point net bonjour daleen ak jàmm si lu gën a fës si xibaar yi tey euh, vendredi 22 euh, décembre 2023. soleil la ñuy njëkkee mu wax ci investiture ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba mu ne candidature à l'élection présidentielle de février 2024 l'APR investi Amadou Ba mu ne je suis convaincu que je peux mener cette coalition à la victoire loolu la Amadou baax xamle euh, dans le soleil à sa une ki nga xamante ne moom président Macky Sall moom nee na euh, le chemin est balisé la victoire devant nous soyez unis donc euh, Macky Sall mu ngi woote pour ñëpp dajaloo nekk benn pour mun a yóbbu Amadou Ba si victoire élection présidentielle 2024 loolu la journal bi xëy def tey si ëttam bu njëkk si yéenekaay bi voilà. Euh, Sud Quotidien mu ngi ñëwaat aussi si investiture boobu mu ne l'APR intronise Amadou Ba mu ne après le parti socialiste PS et l'alliance des forces de progrès AFP le candidat choisi par Macky Sall reçoit l'onction du parti au pouvoir loolu la journal bi ñëw xam ak xamle loolu dans conseil national transformé en congrès extraordinaire d'investiture donc loolu la journal bi xamle ñu des rek ci journal bi mu ne pôle financier judiciaire longue détention Aïssata Sall Aïssata Tall Sall tisse la langue avec les chefs de parquet donc loolu la journal bi ñëw tey xamle euh, Sud Quotidien euh, dans sa une Walf Quotidien rek dafa ñëwaale encore si meeting bi rek moom moo daanaka daal moom moo gën a fës si xibaar yi tey si ëttu yéenekaay yi boo xoolee euh, investiture rek moo gën a fës si ëttu yéenekaay yi tey ba tax na aussi Walf Quotidien ñëwaat ci ne petit coup ba contre Amadou donc loolu la journal bi xëy euh, titre tey ñëwaat encore rek dinañ échange entre ministre magistrat avocat des mots euh, les mots des prisons étalés à Diamniadio donc ay Aïssata Tall Sall bi nga xam ne mu ngi doon jàkkaarloo ak avocat yi ak euh, magistrat yi donc voilà jàkk wax na daal ñëwaat nañ daal si li nga xamante ne moom mooy tax ba justice bi sooxee ñu doon waxtaanee fële sa Diamniadio journal bi ñëw xamal ko tey xamal ko tey dans sa une. Euh, Source A moom dafa ñëw rek ci euh, conférence boobu nga xam ne amal nañ ko ci jëm ñaajo mu ne euh, conférence nationale des chefs de parquet sous le sceau de la réduction de la durée de la détention provisoire mu ne les juges jugés donc loolu la journal bi ñëw def tey à sa une mu ñëwaat rek ci investiture candidat Amadou Ba journal bi ne candidat prête non donc loolu la journal Source A xëy tey fësal dans sa une enquête moom tamit dafa ñëw rek dans le même sens mu ne Macky froid et critique congrès d'investiture Amadou Ba donc euh, nu des rek ci journal journal bi mu ne Ndella Madior Diouf dans la panade homicide involontaire placé en garde à nga xamante ne moom Ndella Madior Diouf euh, dañ ko placé en garde à vue euh, ko jëlee fële si orphelinat bi nga xamante ne moom moo ko yore donc journal ko dans sa réunion. moom dafa def benn gëstu bu yaatu ah def interview ak Aly Ngouille Ndiaye. donc mu ne la grande offensive Aly Ngouille Ndiaye nag mu ne ma part de vérité sur les accusations de maître Moussa Diop mu ne ce n'est que pas en calomniant des gens qu'on peut gagner donc euh, mu ne je serais pas surpris qu'Amadou Ba soit éliminé au premier tour ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Aly Ngouille Ndiaye loolu la xamle si ëttu jëkk jëkk yéen kay journal l'Observateur ñu des rek si enquête bi nga xamante ne moom moo ñeel Ndella Madior Diop Diouf si um, këram mu tuddee ko kër Yermande mu ne 48 bébé évacué pouponnière sans agrément le scandale euh, journal bi ñëw na def si gëstu bu yaatu yaatu si pouponnière boobu nga xamante ne ah, ko doon dirigé di si doon fat ay xale yu ndaw ay bébé donc euh, journal bi def na si ay gëstu ñu des rek si journal bi mu ne euh, Jaxaay neuf adolescentes violées à coups de rôle dans un internat. toutes les filles sont infectées. les échos dafa ñëwaat rek euh, si Ndella Madior Diouf arrestation ba ah mu ne Ndella Madior Diouf arrêté pour homicide involontaire donc mu ne deux bébés ont rendu l'âme dans sa pouponnière elle est placée en garde à garde à vue et la prison loolu la journal bi ñëw xamle les échos dans sa une ñu ñëwaat rek si conférence nationale des chefs de parquet mu ne débat de haut niveau de techniciens sur les longues détentions donc ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk euh, si parquet bi ñoom waxtaan ak ministre bi si longue détention yi nga xamante ne ñoo ngi koy def euh, prisonniers yi voilà ñu mu nekkoon conférence boo xamante ne bu la ñu ko doon waxtaanee fële sa jam ñaajo euh, yéen kaay ñëw fësal fësal ko ki nga xamante ne les échos aussi ñëw def ko à libération tamit dafa ñëwaat rek si Kër Yërmande mu ne la pouponnière la pouponnière de l'horreur ah, donc euh, Ndella Madior Diouf euh, vraiment enquête bi euh, brigade de la protection des mineurs confirme le scandale loolu la journal bi ñëw xëy xamle dans sa une mu ne kay hier par la brigade de protection des mineurs de la sûreté urbaine après avoir refusé de déférer à une convocation Ndella Madior Diouf a été placée en garde à vue après son audition elle est visée par pour homicide involontaire maltraitance sur des enfants et e, exploitation d'une pouponnière sans autorisation loolu la journal bi ñëw xamle mu ne depuis deux 2022 la pouponnière fonctionnait sans autorisation et euh, dans l'opacité totale les bébés des bébés adoptés hein, dans des conditions euh, troublantes donc journal bi daal euh, def na si des bu yaatu yaatu si li nga xamante ne moom mooy pouponnière Kër Yirmandé bu dee la Madior Diouf Euh, journal bi ñëw def ko si ëttam mu njëkk euh, yéenekaay bi lii la ñu indi loon tey euh, si lu gën a fës si xibaar yi tey vendredi 22 décembre fois ñu leen di jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi di leen ñaanal yëndal jàmm Sene Info International